Iriŋa hamnina kam mone ka honorable Omar Cissé moom nag wax bi bëri woon na sa boram depuis moom mu daal di taxaw si meeting si tundam mi di daal di wax lii di nga xam ne moo di ab coono buñ nekk di daj ñoom foofu noonu waaye nag kaddu yi honorable Amar NK Bah abu minister of authority moom nak daal dina génn di daal di wax ne yii nii soo gisee tunda boobu amuñ ko kii di honorable Cissé moo ko daal waral niki sax nguur gi parel nañ woon ay jéego pour daal ko jël pour as yokkute waaye Omar Cissé bañ na yooyu noonu Cissé moom nag jénnan daal di wax ak kàddu yooyu noonu dégg nekkut si gannaaw. Amat Ba kàddu yu nga xam ne tey gaaral na ko foofu noonu nee na tey ñaami na is soo gisee ñu ñàkk yoon soo gisee mënuñoo am développement soo gisee tey mënuñoo dem si kanam honorable Omar Cissé bokk na si ñu waral loolu kàddu yooyu Amat Ba gaaral na ko kàddu yooyu honorable Omar Cissé mu ngi koy daaxalu kàddu yu honorable Omar Cissé mu ngi koy ñaawlu kàddu yu Omar honorable Omar Cissé mu ngi wax ne du kàddu dëgga kàddu yooyu honorable Omar Cissé mu ngi wax ne mostu am soo demee si néegi député yi da ngeen gis li ma nekk di wax foofu noonu honorable amat Ba benn si kàddu yi nga xam ne wax na ko mu ne ñoom jël neen kayit boo xam ne kayit boobu dañ ko indi si néegi député yi pour ñu war a defaral ñaamina is yoon honorable Omar Cissé dafa taxaw pour leeralal askan bi dafa taxaw ngir leeralal Niamina East dafa taxaw ngir leeralal Gambia yépp foo waay muntu nekk na leen li nga xam ne la honorable Amad Ba wax ne indi woon leen kayit kayit boobu dafa nekk di wax comme defar ay yoon Niamina East maa ngi leeralal askan bi surtout waa Niamina East na leen lii dafa nekk li nga xam ne mu nguuri aadama borom mosuñ koy xalaat dafa nekk li nga xam ne nguuri aadama borom mosuñ koy bind si kayit dafa nekk li nga xam ne nguuri aadama borom mosuñoo jël dalasi ne pour Ñaamina is la pour ñu liggéeyal leen yoon. honorable Ceesay moom nag dem na ba daal di wax moom dafa daal di disappoint trop si lii nga xam ne moo di nguuri Gambia bi. yaakaar doon si nguur gi ak ñu fa teew ak ñu gaaral ay kàddu ba honorable Omar Ceesay waxee ba pare. jafe-jafe yu nga xam ne wax naa ko si biir meeting boobu li ma doon yaakaar si président bi li ma doon yaakaar si agriculture ministre bi li ma doon yaakaar si tourism ministre bi li ma doon yaakaar si ministre of lands mooy ñu wax ma problème yi yan jéego leen war a jël pour saafaraal problème yooyu noonu ñu wax ma yan plans leen am pour remédier situation bi nga xam ne leen Ñaamina East nekk léegi lii moo nekk li nga xam ne loolu laa doon expect si meeting boobu noonu waa Ñaamina East loolu moo nekk li nga xam ne loolu leen doon expect si honorable Amad Ba loolu leen doon expect si président bi loolu leen doon expect si ministry of agriculture lii li nga xam ne nag moo nekk dox bu président bi nekk di def nii ni constitution bi u Gambia moo ko daal di may pour mu daal di génn si biir réew mi pour mu daal di gis te nag xam mbir yuy dox si biir réew mi te nag seet naka lañu mën a saafarale mbir yooyu noonu Paradise moom News du Koli